amaat Amath Dansokho mi ñu bugg a waxtaanee tey professeur ñu ngi lay nuyu am mbégte lool dalal la si Demb ak Tay ngir waxtaanee sa xarit ba woon Amath Dansokho euh, Amath Dansokho mu Sénégal mais aussi Amath Dansokho bu bu àddina dalal ak jàmm. Euh, jërëjëf euh, soxna si bi nga bi nga ma wooyee di ma laaj loo xam ne li sawar naa ci tontu. ndax ki ko waral dafa nekk koo xam ne kii sunu xarit la woon sunu wëlëre la woon. ñu bokk seq lu bëree bëree bëri euh, du du man rek rek maa ko seq ak moom ndax sama jabar aussi ci la bokk. ndax euh, bi ñuy bi may takk sama jabar ci ñi fekkoon sama ceet ci la bokkan bi ñuy dem mairie ba. Ah photo yaa ngi fi ba tey. Euh, bi may tudd samay seex kenn ki moom laa ko dàkkantale muy Ibra Amaat. boole ci sama doom yëpp biñ juddoo moom ak euh, ndemtu yàlla si almaami Fall mu nekkoon xaritam <coughs> teew nañ lu bëri ci ci sama ci sama dund ak sama jabar ak ñi ma wër d'ailleurs euh, yàlla dafa def am na 24 décembre 31 décembre yu bëri yoo xam ne ñoo ko doon euh, ñoo ci doon ànd sama kër wala këram yenn yi sax sunu benn xarit bi Ousmane Sembène bokkan na ci donc pour wa wax la rek li ñu séqan loo xëye dafa jéggi sax li taxan ñu xamante te li taxan ñu xamante mooy euh, engagement bi mu nekkan ma fekk ko ci parce que moom ma magan fuuf amaat mi ngi juddu 1937 euh, euh, gaañu 2000 2019 donc ñun bi ñuy ñëw ci parti bi tuddan ci jamono yooyu PAI clandestin maanaam PAI boo xam ne bi moom ci la bokkan bi mu ci bokk booba ñaar fukki at donc xale nekk élève boole ci euh, ànd ak ku tudd Masmoud Diop mu nekkan secrétaire général PAI am ay jiixi jaaxa ci biir parti bi ba ñu wàccee Masmoud Diop Mamour Diop ñibbisi Sénégal Amath ñibbiseegul woon euh, Senghor ak Jean Collin jox ko récépissé PA yi ñu tudd boobu PA yi PA yi Majmour Diop ñun suñ PA yi tudd PA yi clandestin mais PA yi benn rek woon mooy suñu bos mhm. ci laa xamee Amath ko ci ay jamono yoo xam ne ñii dañ naan tase ci benn fête bu rëy rëy rëy rëy bu am France ñu tudd ko fête de l'humanité euh, bi ma ko jëkkee gis li ma njëkk euh, li ma njëkk a seetlu ci moom mooy reyam da daan dafa dafa mas a bëgg rey ah camarade ak ak baat bi euh, ma ne ko mu ne ma man maay ñu ne ma moom mooy Amath Dansokho mi ngi newoon Prague ci jamono yooyu après la ñibbisi bi Senghor décrété euh, amnistie maanaam ñi newoon bitim réew ñëpp daw Sénégal dañu bundu xatalan donc moom ci la bokkan donc bu may xam amaat ci loolu laa xamee bi ma ñibbisee pare sama jàng euh, nekk université di fi jàng nekk aussi militant ci parti bi yore kuréel boo xam ne bii mooy kuréelu dakaar bu PA yi euh, boole kook sama liggéey université donc dëkk Castor mu fay jaar tout le temps ñuy waxtaan ñuy waxtaan ci siège bi di waxtaan sama kër di waxtaan këram donc suñu xaritoo foofu la lawe dama koy daan dégg mais bi mu ñibbisee laa ko xam suñu xaritoo commencé mu may seet si ma koy seet si xam ay doomam xam jabaram mu xam sama doom xam samay jabar nekk nag lu mel ni mbootaay boo xam ne bii daanaka dafa jafe Sénégal ay wëlëre yoo xam ne ñi ànd nañ fukki at ñaar fukki at fanweeri at Sénégal boo koy seet barewut bareetu fi parce que xar démb moo jafe xarit tey moo moo gën a kii donc loolu laa seex ak amaat mu nekk nag sunu secrétaire général adjoint ndax ci jamono yooyu Seydou Cissokho moo doon secrétaire général parti bi mais Seydou ñun xamuñu ko woon bi ñu bi ñu décrété amnistie bi la Seydou ñibbisi bi mu ñibbisee feebar ba ñu yóbbu ko mu faju ji yàlla def mu faatu fa ñu créer avant muy faatu ñu créer parti de l'indépendance et du travail parce que bëggatuñu woon ñuy jaxasee PA yi clandestin suñu bos ak PA yi Masmoud Diop ñu tudd parti de l'indépendance et du travail ci diggante bi nag la Amath nekk secrétaire général ñu continuer di liggéey ak moom donc suñuy wax Amath euh, xale yi tey ak ñi nga fekkewuñu dañ ciy jàpp loo xam ne lii lu am solo la ak fànn yu bëri benn bi mooy nit ku dëggu ku gëm am gëm-gëm nit koo xam ne kii dëggoo moom ak euh, bëgg dëgg moo tax mu nekk xaritu ñëpp <coughs> même xarit ñi nga xam ne ñi d'accord ñu woon ci politique dañuy dañuy daan faral di wax relation yi nga am ak Ablaye Wade te Ablaye Wade képp koo xam ne kii xam na ko Sénégal Amath Dansokho moo ci jëkk ak suñu parti euh, bi ko Senghor di créer partem booba temps libéral mais bi mu nekkee libéral nekk ci opposition bi Senghor di ko fexeel ab Abdou Diouf bëgg ko fexeel ñun ñoo ko jàppale pour parti bañ a tas et pourtant temps yooyu d'accord ñu doon moom. moom Ablaye Wade moom Ablaye donc mais lu mu lu ñu bañ a bañ a bañ a bañ a d'accord ak Ablaye Wade bu ñu nee Amath mu ne Amath mu ne mais Ablaye Wade dama yàgg naa ko xam du politique moo ñu boole. bu jàdd na bu jàddee ci affaire politique naa ko wax dëgg. Hmm. waaye bu loolu weesoo dañuy waxtaan comme ni may waxtaan ak ñëpp. mu nekk koo xam ne kii xaritu ñëpp la woon ba ci diine yi ba ci diine yi maa ngi fàttaliku relation yi mu aman ak sëriñ Saliou xalif général des Mourides yàgg naa toog ak moom ñoom ñaar rek mu ñaanal ko relation yi mu am ak euh, euh, Dabax Abdou Aziz <coughs> man gunge naa amaat kër Dabax fii ci Medina. ñu toog mu toog ci njoowaanam ñu toog ci wetam ñuy waxtaan ba mu guddi ma dellu sama kër benn bis Amath dafa ma woo bi mu nekkee ministre de l'urbanisme ne ma looy def ma ne ko maa ngi sama kër mu ne ma ñëwal ak sa appareil photo ma dem mu ne ma dabax moo may seet bi ñu toogee euh, euh, sëñ Abdou Aziz na ko su ma la waxaan damay ñëw danga ma naan bul ñëw moo tax dama ñëw bett la fa tey maa ngi moom ba tey maa fa toogan ak Bouna Gaye yàlla ko yàlla yërëm Mandiaye gay ak secrétaire Amad ak Haj Mansour ak Dabax mu ñaanal ko wax ci moom wax ju ju ju ju am solo ne ko bu la nit ñi doon déglu Sénégal du nekk ci jafe-jafe Amad xaritu ku nekk la woon maanaam ki nga xam ne kii moom nga gën a suufeel ci nekkaayam ci ci kii bi man man na ko nax wax ko loo xam ne du dëgg pour que mu mu mu ko ci fekk booba soxlawu ko sax amaat noonu la mel nekk nit koo xam ne kii ku am wëlëre la woon koo xam ne kii xol bi dara newu ci danaa dem ba buy wax jafe-jafe nit ñi jafe-jafe liggéeykat yi day jooy en plein comité central wala réunion parce que xol bi moo moo gaaw a tooy ndax jafe-jafe yu doomu aadama di jànkonteel donc pour que nit ñi xam Amath lu tax ñu yaakaar ne modèle la parce que dafa aman qualité yoo xam ne ñi amatul Sénégal wala jafe na fi maanaam dëggu mooy li wax si léegi wax loo xam ne mooy moom nga gëm wax dëgg gi ak nu mu metti metti wax dëgg gi moo tax ab Abdou Diouf dàq ko ci gouvernement bi bi ñu bi après les événements de Sénégal Mauritanie nga xam ne Abdoulaye Wade doon na jonkonteeg Abdou juuf ñu ne ñu ñoo gagné élection yi Abdou Diouf ne moo gagné élection yi ci diggante bi euh, histoire Sénégal Mauritanie ñëw ba ñu rey ay sénégalais Mauritanie sénégalais yi di rey ay ay ay naar fii bi ñu jour boobu ñoo ngi woon comité central ci siège bi bi amaat gisee nit ñi génn ci biti tëral nit rendi ko toj bu dugu naar ak ak ak ak ak jumtukaayu xale yi mosuñu xalaat ne bi ñu Sénégal la la amaat ne question bi ñu xamee aussi ne Saddam Hussein ak ay fuséem ñoo ngi Mauritanie mu pointé ko ci Sénégal lañ ne la question n'est plus kan moo gagné élection yi mais la question est-ce que le Sénégal dana dana continuer di di exister ou pas nañu wax ak waa parti socialiste ci lañ bind ci daan doole ne pourquoi nous allons discuter avec le parti socialiste biñ ci décidé ñoom ba pare lañ def gouvernement de majorité présidentielle élargie dénk amaat ministère de l'urbanisme et du travail muy ministère boo xam ne bi dafa dafa jàppale néew ji doole yi ñu doon fay SICAP di fay HLM ba retraité amatuñ lu ñu fay amaat na Abdou Diouf ñi war ñoo fay dañoo war a jox seen i kër ma fay tas ak benn ndaw soo xam dafa ma ne ba ba bu may sangoo suuf fu PIT présenté wu élection moom lay voteel ma ne ko ndax mu ne bu doon ak PIT génn nañ ma sama kër. ki ñuy amaat dans ko taxawu la bokk. taxawu la bokk amaat moo ne Abdou Diouf ciment bi dafa cher nañ ko wàññi pour que ni ñu mën a tabax amaat moo ne Abdou Diouf lii dem ci tabax yépp nañu wàññi njëg gi ba nit ñi mën koo jënd. bi ñu demee nag ba xam ne bii banque mondiale ñëw na ak politique d'ajustement structurel ñuy jaabaa joowee réew mi ak xaalis réew mi Amath wax en pleine réunion ne lii taxul ñu fal ñu mu inventé benn terme bu tudd mal gouvernance banque mondiale depuis lors la la jël boobu concept de mal gouvernance maanaam ni ñu yore réew mi baaxul Habib Thiam ne Abdou Diouf kii mënatu ñoo ànd ak moom ci gouvernement bi ñu dàq ko looloo tax ñu dàq ko ñu dàq Amath ci gouvernement bi ñu ne ko comme ni ñu dàqee parce que bi Senghor di dem jox jox nguur gi Abdou Diouf bal tàkkul dënn jógul parce que dafa Senghor dafa utiliser la constitution defal ko nu mu ko neexee ba nommé Abdou Diouf voilà maintenant bi Abdou Diouf nekkee au gouvernement ñu yoree plan d'ajustement structurel fonction publique de recruter njëg yi di yokku xale yi di taxawaalu gis nga gis nga at yooyu dafa metti woon travailleurs yi CNTS Madia Diop def la manifest bi ñu bind manifeste bi ci Kër Amath la sose le manifeste parce que jamono yooyu parti bi am na doole ci classe ouvrière bi ñu dàqee ñu ne nañu def benn front boo xam ne bi dañu fi jëlee Abdou juf ñu def le front pour l'alternance front boobu moo jëli Abdoulaye Wade Versailles teertul ko teertul boo xam ne musu ko woon xalaat àdduna parce que pour moom jabaram nee na ko bàyyil politique gis naa ay nit yu dawee aéroport Léopold Sédar Senghor ba siège PDS topp ci euh, euh, ci cortège bi parce que yaakaar bi ñu amoon ci ab Wade dafa réer ñu gagné élection yi ñu jël ligue démocratique jox ko ñaari ministère jël AJ jox ko ñaari ministère jël PIT jox ko benn ministère joxaat amaat ministère de l'urbanisme defuñu fa 6 mois Ablaye Wade dàq parce que conseil des ministres la ko amaat ne ko lii ngay def nii du lii moo taxan ñu fal ñu. boobu lan la doon joxoñ baaraam tuuma. baaraam tuuma mooy corruption baaraam tuuma mooy mal gouvernance baaraam tuuma mooy jël xaalis bi di ko pasar pasare ci biir parti yi nga xam ne ñoo bokk ci gouvernement bi. parce que bi ko Ablaye Wade ne sunu affaire problème xaalis jeex na dinaa jox parti yi ma jàppale yépp xaalis amaat na ko loolu boobu xaalis fan la jóge mu ne ko mais Amath quand même dañu sox mu ne ko non bu dee loolu man bokkuma conseil des ministres Ablaye Wade day wax Amath yëkkati loxoom ne ko li ngay wax du noonu ba Ablaye Wade wax ne saa bu xoolee Amath dans ce conseil des ministres danaan kii teguma may président de la République noonu la ñu dàqee ci gouvernement kon la taxoon ñu dàq ko ci Diouf moo taxoon. moo taxaat ñu dàqaat ko ci Wade. parce wax dëgg il est li ko mandargaal mooy wax dëgg. te loolu daf ñu cee daf ñu cee tàggat ba xam ne bi wax lu dëgg ak dee moom la ñu yemale ñu dellu ginnaaw tuuti bala ngeen di ñëw di dugg ci régime socialiste ak euh, libéral su. Euh, régime socialiste dañoo bokk gouvernement. ngeen bokk ak ñoom ak également ak Abdoulaye Wade euh, si si régime libéral bi dund ngeen clandestinité boobu époque naka ngeen ko dundee ak amaat ban taxawaay la si amoon. metti lool. parce que bi ñu gagné élection yi Saint-Louis 1960 mu Diop li taxan ñu génn ñu ñu ñu wàcce ko ci direction parti bi loolu ci la bokk parce que gagné nañu élection yi occupé euh, Saint-Louis ba ñu génne ñu fa avec les lacrymogènes et les balles ci la ñu jaare ba interdire partie bi parti bi clandestin ngeen di làqatu ñu làqatu ñii dem Bamako ñii dem euh, euh, Union soviétique ñii dem Guinée parce que Sékou Touré ak Modibo Keïta bokkan na ci ñi nga ñooñ jàppale nañ leen bi ñuy tabax seenum réew ñun waa PA yi parce que bi France jógee Guinée 58 parti bi mu ngi juddu 57. 58 Guinée am indépendance français yi lépp lañ génne amatuñu woon jàngalekat. suñuy camarades dem nañ Guinée jàngale fa ci Sékou nit politique comme ni ñuy waxee état amul ay xarit ay intérêt la am bi Sékou Touré commencé jubóog Senghor la ñu gis ne que ñun suñ toogaay foofu dana métti Modibo Keïta aussi bi ñu defee fédération du Mali ba pare ba Senghor di ko bund xataal parce que Mali dafa enclavé il faut mu jaar biir Sénégal pour am li mu soxla moo Modou ba daf leen a woo kooku amaat ci boppam moom moo ko nettali. ne leen vraiment Camara mootuma leen a fat ñu jóge fa dem Algérie bu Médiane moo leen fat comme ni mu fatee tous les mouvements de libération ANC Black Panther SWAPO tous les mouvements de libération Algérie ñoo leen fat ci lañuy ñuy tase ak yu bëri Cuba aussi fat na leen fala Amath tase ak Che Guevara ak Fidel Castro euh, xaritoog Mandela donc clandestinité bi def ñoo génn réew mi ñenn ñi dañoo ruuru ci biir ku ci mel ni Seydou Cissokho mm. musul génn Sénégal ba ni mu feebaree muy dogu génn fu nekk wula nañ ko ko gis <coughs> mënuñu ko gis te pourtant mi ngi ngénte di am ay doom <laughs> te police baa ngi koy seet ñun ñoo jëkk am militant yu police torturé à l'électricité hmm? ah oui surtout bi ñu defee guérilla bi dans le sud du Sénégal te ay traître yu newoon ci biir parti bi jaay affaire bi ba police jàppaleen donc clandestinité bi lu metti la woon ñenn ñi il ñu rawale leen parce que boo daggee boppu parti bi parti bi day suux donc ñu génne leen réew ci la amaat demee dem Tchécoslovaquie waaye dem Tchécoslovaquie euh, tekkuloon ne fàtte na Sénégal mm. fàtte na Afrique waaw taxuloon ne aussi lu ñëpp lu ñële wax rek mu ànd ci parce que 1968 bi soviétique yi envahir Prague daf leen ne moom d'accord ci bu la koy nettali sa yaram day daw jabar jaa ngi euh, ëmb ba diis ñu ñu war leen a génne Tchécoslovaquie pour ñu dem Moscou pour te dire que vérité dëgg fu mu jotee da nga koy wax ak lu mu lay mën di jaral clandestin mm-hmm. métti na woon métti woon na métti woon na lool Sembène Ousmane mii wax na ma moom fat na ay camarades parce que Sembène ci parti bi la bokkal fat na ay camarades këram ma wax ko mu ne ma man dañ ma ne fatal kabaat yi mais laajuma kan la fu mu jógee lu tax mu ñëw fi j'étais un militant discipliné këram googu fii Yoff clandestinité dafa forger lu bëree bëri bari si ngay xamee nit ku am fit ak nit ku ñàkk fit nit ku am gëm-gëm ak nit ko amul gëm-gëm nit ko am conviction ak gëm li nga li ngay dugg ne lii moo war a parce que PA yi dafa neen rek démembrement PA yi mi ngi woon Côte d'Ivoire mi ngi woon Burkina euh, à l'époque Haute-Volta mi ngi woon Mali mi ngi woon Guinée mi ngi woon Niger am nag parce que ñi ko sos ay liggéeykat la ñu woon ñii nag ay intellectuel ñii nekk ay ingénieur ñii nag ay pharmacien ñii nekk ay ouvrier ñi nekk ay professeurs d'université ku ci mel ni Abdou Moumouni le plus grand mathématicien de l'Afrique de l'Ouest moo xaritu Magatte Thiam la woon donc PAI dafa dafa dafa dafa ëmban li Afrique aman ci lu gën a gën a gën a gën a gën a gën a jafe mooy ñu jóg taxaw am xam-xam ni dañuy jàkkaarloo ak tubaab bi nga xam ne mooy doon noot moo tax boo liiree les bouts de bois de Dieu de Sembène wala nga liir l'Harmattan yooyu livre maa la koy recommandé di ko recommandé sa auditeurs yi ci ngay xam ne dëgg lan mooy PAI ak lan mooy PIT bi nga xam ne moo jóge ci PAI tudd PIT hmm. donc clandestinité lu metti woon la alors est-ce que Amath Dansokho am na si ay arrestation yoo xam ne dund na ko am na si benn bu ma Ibrahima Sène nettali boobu jour euh, ci këram la ko fekk mu ne ko demal ndax ñu ngi may wër si donc euh, euh, mun nañu njoxtu ne fii ci Sénégal peut-être avant ngeen koy rawale dund na fi ay moment yu metti si si si période loolu sama xam-xam bariwu ci tellement parce que yàgg nañu mébét bind histoire Amath Dansokho wala def film ci Amath Dansokho yàlla dafa def antuwul parce que am na ci yu bëri yoo xam ne ñi ci suñu waxtaan la laa koy fortaatu parce que fii nga toog nii yàgg na fi toog ñuy waxtaan li ma la wax ci Modou Boukheta bi bi mu leen wooyee na leen que mënatu leen a fat moom ci boppam ci gémmiñu boppam moom moo ko nettali bon Ibrahima Sène mi ngi woon Moscou tase na faak amaat li lim ci xam man peut ko ci. loolu dama ci màgg. nettali na ma grève de la faim sax bu mu fa def. parce que dafa bëggoon gis militant euh, PAI yu tey fa nekk ñu bañal ko ko et ce jour là. Moscou a tremblé nit ñi dañu yaakaar nekk parce que parce que ñun ay communiste lañ. Hmm. lu Moscou wax rek ñu moom nag dafa bañ. ñun dañu mas a Semou Pathé hmm. bi mu demee nouvelle revue internationale pour le socialisme et la paix bi na fa article yoo xam ne ñi boo demee ci revue bi parce que bu bu nit ñi nee dañuy jaar nii te ñun gisuwuñ noonu par exemple ni ñu dañ yaakaar ne mën nañ dem socialisme comme ni pays européens yi demee socialisme li ñu doon wooyee les voies de développement non capitalistes mais on n'est pas obligé d'aller par le capitalisme pour aller au socialisme mais est-ce que mën nañu wax ne que mën nga defar réew sans que créer une bourgeoisie mais bourgeoisie boobu du nekk une bourgeoisie comprador maanaam buy buy jël xaalis réew mi di ko accumé woo comme ci ceddo euh, ci ci ci euh, le le film de semben la euh, xala xala boo ko seetaanee gis ne bourgeoisie boobu mënul développer am réew mais am nañ bourgeoisie nationale boo xam ne bi am na lu ñu bokk ak ñoom mooy l'intérêt du pays mais ça veut pas dire que dañuy beddeeku travailleurs yi wala dañuy ànd ak pour bourgeois yi mais dañuy lëkkaloo pour développer pays bi donc ñun suñu voie de développement dafa nekkoon une voie de développement originale parce que fi ñuy tibbee ñoom fan la ñu tibbee mooy le marxisme hmm. te Marx musul nekk un dogmatique ñun suñu communisme musul nekk un commune dogmatique la preuve musuñ am xaarma yàlla ak affaire diine pourtant pourtant Abdoulaye Diallo le berger de l'île de Ngor nettali na ma ci gémmiñam wala keneen nettali ma ci gémmiñam wala Amath Dansokho ci boppam nettali ma ci gémmiñam loo nit ñoo xam ne ñi jàppale nañu parti bi muy Cheikh Mbacké muy le jaraaf de Kaolack Amadou Seydou Ndaw muy Cheikh Tidiane mii euh, euh, Al mais mais ñu ay religieux la ñu mais dañu àndal nag PA yi ne xam ne li ñuy xeex ak li PA yi di xeex benn la donc ñu suñu suñu mouvement dafa nekk mouvement boo xam ne bii dafa xaw a original. moo tax mënuma la wax ndax Amath jàppal nañ ko wala jàppuñu ko mais xam na ne bund xalaal nañ ko. justement foofu la ñuy ñëwee ci ay combat wu Amath ay succès aussi yu mu am en politique parce que ñàkkul ne xeex na ba euh, euh, yegg euh, ci li nga xam ne moom la doon yóotu toujours pour askan wi nekk ci jàmm wala am ay conditions yu gën a ñoŋ ci seen wàllu. boo ko laajee amaat mooy la du xeexam moom. ni mu ko xamee. Ah. dana wax man du sama victoire. victoire parti bi la. suñ parti li ko man daal gaal mooy. lu comme yeneen parti yi nga xam ne chef bi mooy wax rek ñëpp topp ci. man mi wax ak yow. comité central dama naan dama naan opposé wu amaat. moo wax ma ne ko je suis pas d'accord ma li ngay wax. parce que ceci ceci ceci ceci léeg-léeg suñuy discussion da nga naan dañuy xuloo parce que li ñu bëgg mu génn fa. mooy li nga xam ne mooy dëgg gi ñëpp ànd si buñ ci ko décidé ñu defandoo ko donc succès bu ñu am dañ ko discuter ci suñu instance muy comité central wala bureau politique nga xam ne Amath day wax toujours je suis un homme libre en quête de plus de liberté maanaam nekk suñu parti doo nekk benn wuy wuy lu waa ji wax rek Ablaye Wade boo ko neexul mu dàq la ci parti yeneen parti yi da ngay tarbiyu ko ko jiite parce que ki jiitee moo joxe xaalis bi ñun suñu parti ñun ñëppay ku ne joxe parce que boo xoolee ni ñuy ni ñuy fonctionner ku nekk li ngay gagné bu dee fukk da nga ciy joxe benn boo dul liggéey cent franc nga daan joxe mais booy liggéey booy gañee cent mille franc dix mille franc ngay joxe euh, mille franc ngay fay. parce que c'est des démocratique ku nekk ak li nga li nga tollool ak li nga gagné loolu moo tax. bu ñu amee succès succès bi ci instance yi nga xam ne parti bi moo ko créé woon ci lañ koy discuter ba pare ne ko demal nga def ko su ko defee ñu ànd ak moom def ko waaye moom da dana wax toujours benn voilà la am comité central waaw ama nañ nag cër ci moom amal nañ amal nañu respect ci moom amal nañu amal nañu bëggal nañ ko bëgg boo xam ne bi mais du ñu teye bu fekkee ne bi ànd ñoo moom ci li muy xalaat ñoo ko du noonu kon yan moo nekkoon ay combat wu PIT. combat PIT mooy amuñu doole yeneen parti yi am lu tax yeneen parti am doole lu tax ñu naan PIT groupe bu ndaw la parce que ni ñuy defee politique ak ni yeneen parti yi defee politique du benn ñun suñ parti ñëppay cotiser yeneen parti bi nit mooy jëlee xaalisam kenn xamul fan la ko jële ñëw financé ñoo financé. boo àndee ñu ne damay ànd yow lu lu ma ciy am wala maa ngi sa ginnaaw maa ngi sa ginnaaw mooy suñu suñu la dóoree bal yow nga daanu ki topp sa ginnaaw day dëpp mais bu ngeen nekkee sur la même ligne bu ñu leen dooree bal yéen ñaari yéen a yoree bal bi du doy donc ñun suñ parti du du parti am nañ nag solidarité ku néew doole ñu war laa dimbali fu ñu la war a dimbali am nañ kees boo xam ne bi dañ ko defaral pour que ku ci am problème boo xam ne bi problème bu sérieux la ñu jàppale la wala ñu ne diw est-ce que mën nga jàppale diw waaye damay ànd ak yow ndax ma am ci dara benn waaye dafa mën a ñëw suñ siège ne man lu ma jaaxal PIT la dafa am lu mu leen bëgg laaj ñu ne ko lan la mu ne PIT bu ngeen di def élection bu ñu war dem élection ñu war tàbb tata ay liste man du ma dégg mukk ngeen di coowoo ko yuuxootu fii ak ak tojante bopp ñu ne ko xamul ci investiture yi. xamul tax mu ne ñu ne ko dañ naan diw yow leen bëgg a proposer mu ne ma non non proposer kii parce que moom mu gën a xarañ maanaam du xëccoo place. da ngeen nawante aussi. waaw dañ kii xëy moo ma gën a man def lii nañ ko teg foofu mu def ko nga jàppale ko ci nag waaye du ma ne dama lay puus ndax ma man toog. tey loolu moo tax ñoom bi ñu nekkee assemblée Amath bi mu nekkee assemblée Semou nekk assemblée sama jabar nekk assemblée liggéey bañ fa liggéey dañ leen koo sant te buñ ko liggéeyee dañuy ñëw ci parti bi wax lu luñ fa def ñu ne leen nii la mbaadu nii parce que député askan wi moo la fa teg da fa war a nekkal askan wi. war a fa nekk yore ay muso yu rëy wala ñu lay fay ay 1 million ak voiture de fonction carburant nga yaakaar ne yaa moom réew loolu pour ñun loolu du politique. loolu moo tax politique wu ren politique wu jamono yi ñu nekk nii dafa nekk politique bu salte xeexoo ŋaayoo reyante waxante lu bon sos mais loolu du politique ñun si suñu jamono ak jamono ji may wax ak yow suñu parti da ngay gëm ni li nga nekk mooy dëgg bi nga xeex pour que yow loolu avancé xañ na li ñuy xeex duñ ko fekke de société boo xam ne bii Euh, li ñuy wax socialisme maanaam ku nekk ak li nga yelloo loolu mooy socialisme boo ci jógee nga dem ci communisme ku nekk ak li la neex mais sore nañ foofu ndax ñi ñu noot dañoo am doole muy France muy États-Unis muy Japon muy muy OCDE muy ñi nga xam ne ñoo am kattan ñoo yore Fonds monétaire international ñoo yore Banque mondiale ñooy ñooy buur di bumi di dogal euh, à l'ONU xoolal Afghanistan fi nekk nii ñëpp ngi coow taliban yi mais kan moo xalaat fan la taliban yi jóge 1978 lañ njëkk a def révolution Afghanistan régime ba fa ne newoon Union soviétique jàppale ko comme ni Union soviétique jàppale ANC jàppale SWAPO les mouvements de libération régime boobu jox jigéen ñi gëdd de 1978 à 1979 mën naa wax ne jigéen ñi 40 pour cent des médecins afghans ay jigéen lañu woon pour cent de la fonction publique afghane ay jigéen lañu donc droit des femmes respecte éducation bi ñuy jël pouvoir bi en 78 analphabétisme à 70 pour cent analphabétisme bi régime boobu ñëwee de 1978 à pratiquement 1982, le taux d'alphabétisation est passé à 90%. États-Unis fexeel leen créé ak CIA cellule boo xam ne bi dañuy jël ay talibans islamistes radicaux ngemb leen comme ni ñu def avec le général Massoud jël ku ñuy tudd ingénieur bu tudd Ben Laden dans une école américaine lañ ko forme <laughs> mu ñoo ko defar. ñoo ko defar mu mujj rëcc leen. États-Unis ak Grande-Bretagne ñoo jëkk indi problème Afghanistan léegi nag bi ñu demee ba bund xataal leen ba renversé gouvernement boobu ba teg fa ay mujaahidiin yoo xam ne ñi pétrole bi ak gaz bi doon génne Afghanistan moo intéressé woon États-Unis ñuy ngemb leen mais ñooñu bi ñu demee ba ba xippi comprendre comprendre mais dañoo wëlbatiku contre les États-Unis parce que li ñu doon combattre les mouvements djihadistes islamistes radicaux ñoom ñoo mujj contre américains yi li ñu gis ni Afghanistan dafa am histoire mais soo jàngul histoire bi te ñun communistes yi li ñu mandargaal mooy doo wax loo xamul ngi gëstu bu baax a baax a baax parce que le monde est compliqué le monde est complexe soo bëggee comprendre dynamique yi li li nga xam ne bi moo moo moo lal monde bi ni muy doxee il faut nga am xam-xam bi pour nga am xam-xam bi il faut nga dem jàngi ko waxuma la jàng ci li la France 24 bi jox wala TF1 wala suñu télévision yi mais da ngay dem am na ñuy bind di gëstu tous les jours ñu nag suñu parti loolu moo ñu mën daal gaal ngay jàng da ngay am xam-xam pratiquement euh, ay borom yi xam-xam rek ñoo nekk ci parti boobu. bari na ci de parce que ouvrier bi sax borom xam-xam parce que ni muy ni muy liggéeyee. maîtriser na li mu nekk. ah non kooku boo ko laajee ni muy liggéey mais attends nga xam ne doomu aadama boo ko joxee moyens yi mais day dem mais boo ko joxul mook mook mala ñooyam. Amath ban gis-gis la amoon ci politique ndax tey métier lañu ko def pratiquement di ko dundee. mais euh, bu ñu delloo démb tuuti waaw. dama lay wax suñu parti da ngeen di am suñu parti xam nga lan la. Mm. politiquement conscient et techniquement compétent. mooy doon suñ mot d'ordre. da ngay am am loo mën. waaw doog a politique. waaye nekk politicien bu ñu xoolee sa CV waxuma CV traficoté yi Ablaye Wade indi fii de yow loo mas a def ba jëriñ sa réew bala ñu laa dénk ndombal tànk. ñun suñ suñ politique waaw suñ politique mooy dañu naan kaay nekk ministre nga ne bugguma parce que li ngeen la bëgg a dénk attanuma ko mënuma ko jànguma ko xawma ko kon daan ngeen euh, ah, refuser ay kii proposition yu mel noonu oui waaw parce que on se dit que non c'est pas pour faire de la figuration da ngay dem pour liggéeyal askan wi liggéeyoo pour sa bopp politique su nekk nii mooy damay giiroo lu ma gën a mën a am rek ma indi ko moo tax ñun ñun neexuñu deret te neexuñoo àndal te du ngeen yàgg fenn. <laughs> fu ngeen dugg en général ak génnaat. non parce que askan wi moo ñu tax a jóg. tey jii deux mille vingt et est-ce que yaakaar nga ne c'est normal que Sénégal toll fii mu toll. 1960 bi ñu amee indépendance ba léegi ñaata at la. plus de cinquante ans. nit juddi na fi. màgg fi takk fi jabar tekkiwul doomam tekkiwul. mais loolu du fatalité. te nee nañ deux mille année deux mille yi mooy année Afrique. li àdduna bi soxla yëpp mi ngi Afrique amul dara lu adduna bi soxla loxo nekkul Afrique muy bois muy ndox muy minerai muy or muy diamant manganèse pétrole gaz et surtout uranium djihadisme bi nga gis fii Niger les trois frontières mm-hmm. du dara lu dul ressource uranium bi nga xam ne bi moom la français yi soxla moo leen taxal toog dañu wekk seen énergie fa la nekk te ku leen neexul du fa toog ñooy wax ISEN Habré mais mais mais Frolina bi ñu koy créé dans les années soixante soixante dix mais c' était un mouvement de libération Goukounélé day ISEN Habré ak toute la politique de la France au Tchad parce que Tchad dafa mas a nekk point central pour la le dispositif français mais bi leen bi leen tant que mi ngi doon xeex ak Kadhafi français yi faale ñu ko woon mais bi Kadhafi retourné woo di di def beneen politique bàyyi li mu bëggan def pour maîtriser un peu la sous-région di commencer menacer les intérêts français ñu commencer teg ko bët créer les conditions pourquoi Idriss Déby moo renversé euh, Hissène Habré parce que l'armée française les services de renseignement français seen loxo ngi ci biir lu sax Sankara Blaise Compaoré ko parce que les services secrets français ñoo ngoon ci biir pourquoi Ernest Ouandié au Cameroun pourquoi euh, tous les martyrs Amilcar Cabral bi ñu koy rey Guinée en 1972 euh, mais portugais yi ak Allemagne ak France ñoo fomenté coup bi te Sékou moo ko ak accueillir ñu rey ko pour tuer le PAIGC force yi ñuy xeexal ñoo ñoo ñoo am doole. est-ce que yooyu bokkoon na ci seen combat. bien sûr l'internationalisme. Cuba pourquoi ñuy défendre Cuba. lu ëpp juróom fukki at ñu ne Cuba du du jaay benn dëkk du jënd ci benn dëkk. embargo embargo man dem naa Cuba. dafa mel ni Sénégal laa nekk li ñuy ndóol ndóol ndóol ndóol ndóol ndóol dañoo humain maanaam dañoo yëg nit. et pourtant éducation Cuba moo fi ëpp doole ci àdduna bi yëpp xoolal la pandémie de la Covid 19. dem nañ ba yónnee ay ay médecins Italie pour jàppale la et pourtant à Cuba. amuñu assez de ressources. ñoo ko gën a ñoo ko gën a soxla mais dañoo internationalisme prolétarien boobu. moom mooy li li nga xam ne mooy soxal communiste yi pour ñu jàppalante seen biir te aujourd'hui Cuba Cuba mi ngi mel ni fii ak gore par rapport aux États-Unis ba fa américains yi débarqué playa de de Giron mais dañu ne duma ba ñu daw bi bi bi américains yi pointé seen fusée sur Cuba mais Khrouchtchev moo jël ay fusées pointé ko sur les États-Unis ne bu ngeen laalee Cuba ma sànni leen ay bomb noonu lañ ko bàyyee Fidel Castro def na révolution rey nañ Che Guevara mais ba tey ba tey ak luy metti metti metti metti Cuba reste un bastion pour le camp du progrès waxuma le communiste yi rek de mais le camp du progrès de l'humanité de l'humanisme loolu moo ñun mooy soxla l'internationalisme suñu combat yépp c'est ça amuñu xaaj ak seen fépp foo xam ne fi xoolal Brésil bi bi ñu fexee ba ba laa nekk président américain fexeel ko comme ni ñu defan Allende Chili en 1974 ba renversé ko ni ñu ko renversé Allende avec la grève des camionneurs fo financé par la CIA Pinochet régnait sur le Chili di rey di di def lu ko neex mais la même chose au Brésil ba Lula ñëw au pouvoir ñu fexeel ko ba génne ko fa fi nekk ni président ba fa nekk élection yi ñëw dañ koy dàq parce que Amérique latin dafa nekkan bastion boo xam ne bii résistance la woon comme l'Afrique avait des bastions de résistance parce que le monde là am na ci doom aadama yoo xam ne ñi bugguñu noo teel wax ji fa la nekk ay bañkat lañu démb ak tey ngeen di teewlu ci Rewmi FM mbokk yi Amath Dansokho la ñuy waxtaanee am mbégte mu rëy dalal ci professeur Magueye Kassé ñu yegg si ci ponk bi nga xam ne moom lañu ñu jagleel vision bi amaat amoon ci Sénégal ak euh, également li mu fi bàyyi. pour génération yi nga xam ne ñooy ñëw après moom ndax wax nga ko sànq dangeen daan xeex loo xam ne wóor na leen ne du ngeen ko fekkee kon ñeneen ngeen daan xeexal. su sunu xeex boo liiree li sunu livre la boo xam ne bi maa ngi koy recommandé ku nekk sunu tolluwaay affect mayuñu ñun communistes yi ñu mën a jël pouvoir di ko Sankara defee def coup d'état jël orientation communiste mais dañ koo fexeel daane ko te fiñ ko fexeele daane ko ñi ko gën a jege ca lañ bokk muy Blaise Compaoré journaliste bu comme yéen bu ci am critique ànd ak moom Norbert Zongo noonu lañ ko reyee quoi parce que intérêt français yi la ñun xam nañ ne ñun amuñu doole bu ñu mën a xeexee les intérets français au Sénégal mais sunu stratégie ñoo ngi ko tuddee large rassemblement pour la démocratie cest à démocratie mooy na doomi aadama bu nekk mën a jàng am xam-xam ba mën a xelal sa bopp fi baax ak fu bon loolu du sotti tey donc ko tey mu sotti tey c'est un long processus da ngay xeex ci syndicat yi loo moo tax syndicat am da ngay xeex ci réseau ci ci ci société civile mais la vraie société civile waxuma société civile politicienne ah. ñoo xam ne ñi parce que société civile au sens où Marx et Hegel l'entendaient euh, et Kant c'est pas la société civile qu'on a aujourd'hui ce sont des sociétés civiles financées par l'extérieur la plupart du temps je ne cite pas de nom mais en tout cas am na ci joo ñi sama xel tee na ci ñoom fu ñu jëlee seen financement nu ñu kii mais société civile boo xam ne danaan gouvernement bi lii nga war a def fexe ba maire yi nga xam ne dañ koy xëccoo fii ak euh, janvier mm. ñu teg fa maire yoo xam ne ji ku ne da nga li nekk sa commune nga xam la mooy la mooy la mooy seeni problème nga mën a ànd nit ñi faj yooyu problème am na compétence transférée mën nañ fexe ba compétence yooyu ñu ñu dëggal ko par exemple la l'assainissement ñoo ngi ci inondation yi mairie yi lu ñu def ça c'est une compétence transférée. amuñu moyen aussi. waaye mais attends nañu wax état bi mu jox leen ay moyens. ah compétence transférée day ànd ak. transféré des mais loolu boo demee Allemagne y décentralisation li li mairie bi war a def dana ko def su fekkee mënu ko def ville moom moo ko war a def bu bu ko ville def état bi moo ko war a def mais dañuy mobiliser nit ñi pour ñu jox leen les moyens pour ñu régler yooyu problème ay école yoo xam ñi abri provisoire la école primaire. mais kooku du compétence transférée doo yëngal affaire yi ba ñu tabax leen ay école selon une planification rigoureuse. parce que ñañ fay teg aussi coono ah, askan wa ñoru leen seeni gars yi bopp la la ñuy la ñuy doon te xamuñu luy démocratie pour nga am démocratie da ngay am nit ñu xam luy gën démocratie démocratie mooy dañ lay soxla nga wax li nga xalaat te li nga xalaat am solo ñu mën ko topp bu fekkee jaadu na mooy démocratie tey démocratie mooy lan am naa xaalis je te mets la démocratie kooku du démocratie suñu xeex mooy la large rassemblement boobu ñu wax dañuy bëgg yee citoyens yi seen bopp yi ñu xam ne seen ëllëg ñoo koy tabaxal seen bopp du kenn kuy jóge fële ñoo tabaxal leen ko loolu si suñu lutte la bokk ñun xam nañ ni nous sommes des communistes notre vision c'est une vision de d'un d'un progrès social transformation sociale <coughs> mais pour nga yegg fa il faut que nga créer les conditions de large rassemblement ñoo xam ne ñi ñoo bokkee intérêt mën a jëmandoo mais large rassemblement moo indi ñu ñu ñu daane Abdou Diouf large rassemblement moo indi ñu fal Macky Sall mais dañ lay fal nit ci large rassemblement bi nga dugg ba pare yaakaar ne sa partie rek moom moom yëf yi mais loolu tam beneen xeex la même boo bokkee ci gouvernement bi comme ñun ñoo ngi ci gouvernement bi fi mu nekk nii mais da ngay wax dëgg bu fekkee dëgg wax ko dafa jot même bu lay ñu dàq la. la ñu dàq ci dëgg ñu loolu mooy moo ñu masa mandargal te amuñ ci tiitaay amuñ amuñ ci amuñ ci benn xaarma yàlla parce que ñun liggéeyuñu pour ñun wax naa sànq li ñuy liggéey xam ne duñ ko fekkee mais dañuy tabaxal pour suba suñuy doom ak seeni doom pour pourquoi suñu doom yi di jël gaal di dem foo xam ne fii soxlawuñ leen fa bu ñu amee liggéey sax dañ leen di exploité parce que travail au noir la def mais dañaa demal demal demal demal parce que boo demee nga ñuy yónnee xaalis mais c'est cercle vicieux dañ ko war a rompre nañ def école bu baax ñoo ngi ci commencé des na nag lu bëri formation professionnelle enseignement technique pour que xale yi am métier mën a mënal seen bopp ñun suñu combat foofu la nekk aussi. tey ni réew mi doxee euh, Amath Dansokho bu fi nekkoon lan nga yaakaar ne. dana ca ànd ak lan lay jàpp ne dañ koo war a joyanti. a ah, dana ci ànd ak Macky ci politique yi nga xam ne mi koy def. am na région yoo xam boo fa demee tey. li fi gouvernement bi tabax sama keroog rek sama jëkkëru magi sama jabar nee na ma dem na Fouta dem na ci coin yu bëri mais liñ fa liggéey ay pont ay auto ay ay ay route yoo xam ne ay village enclavé électrification ñu ne baax na mais des na doyul mais loolu amu fi woon donc lépp loo xam ne lu baax la dañ ko appuyer mais bu fekkee nag safaan ba la ah da nga xam ne lii du noonu wala boo fa tegee koo xam ne kii du la mu fay def bokkut ak liñ ko liñ ko sant da ko wax ba nit ñi dégg ko bu la gouvernement bi déggee c'est bien bu la déggul ñu delloo buy buum ca booy booy ba rek ni leen dafa ba dàq fi Abdou Diouf defee ba dàq fi Ablaye Wade mais mën nañ fa dàq keneen mais li ma jaaxal fi mu nekk nii tey ma gisuma kenn koo xam ne kii ci langue politique bi wax nga fi discours boo xam ne bi doy na xel. ni ko Amath daan defe waaw ah man de gisaguma parce que boo dégloo télévision yi seetaan leen di déglu rajo yi lire journaux yi da nga xamante ban Sénégal lañ nekk. dakkasante beeg teesante beeg. saagante beeg waxte lu ñaaw mais loolu jëmul réew kanam. ñun nag ñoo ngiy liggéey pour que nit ñi gën a yeewu ci lu baree baree baree bare te su boobaa bu jotee daañu xam. exactement fan la ñu war a teg seen tànk. seen ànd ak euh, parce que la gauche dafa ubbeeku léegi ànd ak euh, socialiste yi avant tey yéen a ngi ak Macky Sall jaar ngeen ci ci Abdoulaye Wade est-ce que loolu amul lu mu wàññi si seen combat. wala nit ñi ni doon adhéré. aussi nekkul benn genre frein. sunu idéologie communiste bi musul nekk dogmatique doo appliquer rek de manière abstraite yëf yi. donc koy jàng seet ko seetaat ko. xam lan moom lan la nit ñi mën a comprendre fii te dana leen avancer loo waxuma lu ñu mënul comprendre de wala lu ñu comprendre loo xam ne bu subaa duñ ko def loolu ci mandarga yi jëkk ci la bokk la ñu mosuñoo tudd parti communiste du Sénégal parti de l'indépendance et du travail tur yi du du caaxaan indépendance mooy nga moom sa bopp comme PAI parti africain parce que africaniste lañu parti africain de l'indépendance parce que ñun moomaguñ suñu bopp intérêt français yi ñoo ngi fi intérêt chinois yi ñoo ngi fi intérêt américain yi ñoo ngi fi ak yeneen intérêt nu ñuy def ñun ba am suñu indépendance bopp ba suñuy doom mënal seen bopp loolu bataille la boo xam ne bii du question communisme. ba tey yéen a ngi koy mëne. ngi koy mëne. et du travail. yéen la relève aussi jeunes yi yéen a ngi préparé. ñoo xam ne li ngeen liggéey yëpp ci ñoom ngeen leen seen i loxo ngeen koy. bu yàggul la la année benn webinaire de formation des jeunes notre parti de l'union de la jeunesse démocratique Albouri Ndiaye comme ni ñu koy defee ci ci xale yi ñoo koy defee ci jigéen ñi aussi parce que prise de conscience dafa am dafa am solo waxtaan wi ngay waxtaan a nit même bu bokkul sa parti ak li mu ciy jëlee da nga ciy dugal loo xam ne li bu subaa dana ko jëriñ. moo tax aussi mën ngaa nekk membre du parti mën nga bañ nekk membre du parti mais mën nga gëm ne luy jëmale doomu aadama kanam mooy progrès ci ci xeex bi la bokk xam lu ñuy bañ obscurantisme yàlla yàlla yàlla mais yàlla daf ñoo dañoo indi ci ci àdduna bi nañu jox naa leen xel xel lu muy jëriñ mooy xalaat boo naan tey yàlla euh, euh, yàlla gémmiñ gu mu xar. def ci dara def ci mais dama naa wax sama étudiants yi bu ngeen xëyee ngeen nga <laughs> ba ngoon jot. ndax dara dina dugg. ay weñ ñoo ci dugg. <laughs> waaw. du dëgg donc yi fi loolu tey jii tey tey tey tey sunu réew war na naa réew Afrique sax ci bopp war nañoo gën a avancé avancé boo xam ne bi moo ëpp eh, li ñuy def fu nekk ñu jeexal ak Amath Dansokho juñu nga ko si ndoxteelu waxtaan bi waaye démb ak tey ni ñu ko baaxoo suñuy waxtaanee kilifa euh, ñu mel ni Amath Dansokho ak ñeneen dañuy euh, jagleel ponk seen ay qualité loo xam ne dañ koy lim ci ay jikko wala ay taxawaay yoo xam ne jeune génération yi mën nañ koo capter euh, kon ci tënk lan war a jàpp ci moom li ñu wooyee modèle mooy li ñu wooyee dëgg bëgg dëgg di wax dëgg foo toll di bañ a wuruj wala ngay wax loo xam ne gëmaloo amaat lu mu mës a wax daf koo gëm bu la neexee daf koo gëm bu la neexul aussi daf koo gëm loolu lañ ko jàng ci moom ñaareel bi mooy xam-xam amaat boo demee ci bibliothèque am mën naa wax ne moom moo ëpp ay livre te pourtant man bari na ay livre li mu liir nit liiru ko ci fànn yu nekk nag. waaw xam-xam. am na yoo xam ne boo koy wax danga koy da koy tënk fu wóor boo ne fii bu ci nit demee gëstu ko dana ne ah lii kat moo am ñetteel bi mooy wëllëre amaat dafa sàmm wëllëre am na ko ko wax bu yàggul ne loolu moo tax euh, bi muy jàng lycée nekk seen louis ak lam fa daj ak lam fa xaritoog ay nit bi mu gaañoo leneen nañ ko denc Saint-Louis kóllëre ko waral. ko waral ak almaami Fall xam nga loolu aussi royukaay la am xariti daaw te Amath yàlla mayoon na ko loo xam ne di man dama ko ko naayoo woon mooy li ñu woowee mémoire bu lay wax dara da lay wax date précise année nangam sangam. mooy Amath daan jàpp daan jàpp loolu la ko mooy jàng liir jàng liir moo indi mémoire nga xam ne dara dara du la rëcc. waaw loolu day màcc daal day màcc. ba pare Amath dafa mës a bëgg doomu aadama bu ñuy wax humain wax naa la ko sànq. Mm-hmm. day wax problème jàmbur sax day jooy. <laughs> te Amath dafa nekkan koo xam ne kii ku respecté gone ak jigéen la woon waaw gone ak jigéen gone mën na ko yendal fii moom ak Maguette Thiam ñoo yem ci loolu. jigéen aussi dafa gës gës gëdd jigéen bi ñuy bi ñuy tabax union démocratique de femmes du Sénégal UDEFS sama soxna jiite ko bàyyi keneen jiite ko ba muy law ba léegi nii dafa xam ne jigéen ñi bu ñu leen joxul gëdd Sénégal mënul avancer. dara donc yooyu mandarga daal. gis naa ko ci amaat yoo xam ne ñii ba pare respecté nit mooy respecté nit ak lu mu gëm respecté ko ci mais bu ngeen d'accord mais waxtaan leen ba xam ne yéen fii ngeen di yegg d'accordotu leen ku ne dem pas euh, la l'argument de la force mais la force de l'argument loolu aussi jàng nañ ko ci moom. ci Amadou Soxom jërëjëf professeur Maguette kase ñu ngi lay gërëm bu baax a baax amoon mbégte dalal ci waxtaan bi doon waxtaanee sa wëllëre Amath Dansokho mi nga xam ne euh, yéen a nekkandoo woon ci PIT jaar ci lu bari aussi sekk ay moment yu particulier ni nga ko waxee sànq ñu ngi lay gërëm ñu bàyyi la nga tàggoo. waaw maa ngi lay gërëm aussi ci laaj yi nga yi nga ma laaj euh, maa ngi euh, njort ne xañ na lépp tontuwuma ko ndax. niñ ko niñ ko defee la mais jéem naa daal wax li nga xam lii mooy sama aqutaaraay li ma xam ci Ama Danso te mu nekk koo xam ne kii du ñu du ñu du ñu du ñu tay di ko ñaanal fa mu nekk yàlla xayal ko àjjana te yàlla buy fay xol rek dana fay Ama Danso xol parce que euh, bi mu gaañoo témoignage yi jot jóge fu nekk wane ne wax naa euh, kilifa diine yi Euh, diine euh, jullit yi mais man naa wax diine catholique yi aussi. eglise bi rapport yi am ak ñoom mais yeneen façon rapport la donc ñëpp ko bëggan waaw te amul fu mu dem foo xam ne fii rek duñ ko dalal déglu ko ñaanal ko te loolu may yàlla donc ñoo ngi koy ñaanal fi mu nekk ak ñi mu àndal yàlla xare leen àjjana te yeexee ñu ñu koy continuer ñaanal. di la di gërëm aussi ci laaj yi nga ma laaj ne am na solo parce que sunu dëkk bi dafa soxla ñu leen di gindi ci yu bëree bëree bëri wan leen ne am na ñu fi newoon démb. waaw ñu fi newoon démb li ñu fi ji ba jóge fi buñ ci toppee xañ na daañ ci mën a jëriñ. donc maa lay gërëm bu baax. jërëjëf professeur Maguette Kassé ñu lay gërëm aussi si disponibilité bi gërëm professeur Mary Teuw Niane mi waral xamante bi. waaw sama xarit la. <laughs> Euh, il faut que ma nuyu ko. ndax moo ñu boole. dafa nekk sama rakk joo xam ne yàlla may na ko xarañ. ci lu bëree bëree bëri ci affaire mathématique ci affaire jàng ci affaire xam-xam ci affaire dëggu euh, Mary Teuw bi ma ko xamee ba tey lu mu dugg rek lu wóor la. moo tax ma ne bi mu nekkee ministre de l' enseignement supérieur aman nañ ci yaakaar gu bëree bare bëri te fi mu nekk nii ak lu muy yóotu euh, yóotu ndax am ko bés bu ñu ko ko dénkee dana fa def liggéey bu mucc mu mucc ay maa ngi koy ñaanal ñaan bu gën a bu gën a bu gën a sori ci sama xol parce que dafa nekk koo xam ne kii vraiment am naa cofeel ci moom bu bari ni mu amee cofeel ci man. ñu koy dégg professeur Mary Teuw Niane kon ñu koy gërëm dellu di la gërëm professeur Magueye Kassé moom la ñu doon dalal ci démb ak tey doon waxtaanee Amath Dansokho di ñaan yàlla dolli yërmande euh, si moom euh, émission démb ak bi nag mun ngeen ko teewluwaat ci réew mi officiel mooy suñu chaîne ci YouTube ñu dig leen daje beneen dimanche incha allah waxtaanee leneen ak keneen Fatou Thiam Ngom moo ne woon ci kaddu gi jaawo jàlloo si jàppandal gi jaa ngeen jëf jàmm